sëriñ xas la ñuy dalal mu waxal nu ci góor gu tedd googu Cheikhul Khadim waaye waxal nu tabaarakallahu ci màggal gi nga xam ne tabaarakallahu lu rëy la bu jotee wax naa la ñëpp dañuy bàyyi seen yitte ngir génn góor waaye jëm benn dëkk muy tuuba Touba jërëjëfe sëriñ jër jërëjëfe sëriñ Touba sëriñ xaas waaw Wéri TV ñoo leen ci asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وإني أهيسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الحمشات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدون الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الحدى بدا سيدنا محمد والآل وزعبه ذوي النوال والي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا عمر فاي ñu ngi lay dila dila ziar ci wer wu tedd wi wer wu mag bi weer wi nga xamni ni sunu yaakaar ak ëlëk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moko santé pour bu ñëwatee nan ko ci santalé yalla xamna ni sax njott na ni non nga ubbé waye dafa ni dem nga sax ba bo démé ci ab téré sëriñ ba mu fay bind na ila yaqa dafi safar xilli waxit bi safar mustahniyan ali nafar bi jëm di fi xalat waaye sëriñ bu nee nan ma santale yàlla ana bu ni santale yàlla sëriñ bi fan lañ ko war a mën a jaarale ba santale ko yàlla loolee mu daal di mën a am teew bu jub ñu mën a am màggal ba pare daal di màgg xam nga sëriñ bi am na si téere bu mu naan yaa maxsara subbaani in xiftumul xajjal fa qaddimu taalama xalaa xamal nee na nit ki lépp loo mënti def da war a xam la ca yàlla atte ak jëf ja boo ko jëfee ba pare loo cay wuti ba pare ak jëf ja boo ko jëfee loo cay am nga doga jëf jëf jojé kon jëf ji la ñoo def li ñu sëriñ bi sant dañoo no wara xam sëriñ bi lan la ci bëgg ak lan mo tax mu mu mu mu jublu mu jublu si ngir ñu nang ko santalé ci sëriñ bi ba muy dem la wax nan bu bis bi sété nan ma ci santalé yalla waaye demul ba ñëw bu bari nang ko bàyyi xel ñu ci bari bo leen laaj yakane sëriñ bi da dem ba ñëw déedéet avant muy dem la wax bis bi bu ñëwatee nan ma ci santalé yalla te dara dakaa war a ngir jug eh, liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax ku nekk xam na ni sëriñ bi gisoo lam tagg yonent bi daal ni lam yaddu misdan Moustapha Muhammadi nee na lam yaddu du mus a feeñ misdan Moustapha ku mel ni Moustapha Muhammadin Muhammad lam yaddu misdan Moustapha Muhammadi sirran wa jëhran fil baraya samadi nee na lu feeñ ak lu nëbb bi nga xam ne ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi dootu si ñëw léegi màggal bu ko serigne bi waxe nan ko santal yalla bëgg nañ ci berne jang alxuraan jang xasida te def ko ni ko sëriñ bi bëggee ndax ku fa jógee bo ñëwé da nga wara mag way waro waroo dellu ndax serigne Saalihu mbacké sinu yaaka tay ëlëk daan wax nan magal gi kat ku fexé ban ban raw la ci do do kala ci raw do ko mëna a mu ni ñaari nit bu ni ànd ak ñaari nit bu and ko ké fexé ban raw ko ci magal gi na japp ni ki ka raw do ko mëna a ba faaw ndax magal gi mel noonu kon màggal gi nan ci nan ci nan ci góorgóorlu bu baax a baax te boo jógee di màggal yi da ngaa war a xam ni borom dëkk ba lam bëgg nga defal ko ko borom dëkk ba lam bëgg sa màggal ga nga defal ko ko ana lan la bëgg ci màggal ga mooy berne jàng alxuraan jàng xasida waaye màggali ba pare ñëw dellu ginnaaw yàlla na ci yàlla musal kon euh, kàdd yi bu fekkee am nga leneen loo xam ne dañu ko siy laaj ñu ñu continuer ak yow sëriñ liñ lay laaj xanaa eh, am na lu ma seetlu wax nga sa biir wax dama ko waxtaan ak ay bopp boo seetloo ab murit philosophie bi mu yor yàlla da ko cee fekk mooy su màggal ñëwee lépp lu mu am attan na ko caa def toog te am na yaqin gu wér ne balay déwén day am lu ëpp loolu moom nga wax léegi ne Serigne Saliou nee na képp koo xamante ni fexe nga ba raw sa morom ci màggal gi yëgal ne kooka nga raw ndax màggal gi dootu la def lan moo waral loolu dégg dëgg dëgg dëgg. si Amadou Faye ndeysaan wax nga wax ju yéeme tey fi la koy tontee mooy ci waxi Serigne Saliou ga ci ni yaakaar tey ëllëg Serigne Saliou dégg naa si Sine job mu ni Serigne Saliou nee na màggal gi bu ñëwatee mën sëriñ Saliou de màggal gi toll na ma foo xam ni attan naa jaay sama kër def ko ci màggal gi te xoolal googu jaayante dafa dafa dafa dafa dondu dafaa dondu Serigne Touba. ndax sering bi lii mu santaane da ka jaral ndax bu ko jeralu won at mi neena amul len luma ci def lulu tag lulu tag tagg yonent bi salaa salaam ak liggéeyal sun borom ndax neena salatu salaatu sitta bi maddihi sitta tahdi ibatta mahati say neena na bi fukki weer la ak ñaar dama kay xaj bu nek ma ma def ko jurom ben ben bi ma koy ma koy ma ben bi ma julli ci sallallahu taala alayhi wasallam te lolu ling ma laaj ni magal gi murid bu ñewé attan na jaay seen yëpp ak positif gi ci àndal danoo xam ni lañ say jëlee waat mooy ëpp lañ sey jëlee mooy ëpp waaye li ma wax ni la màggal gi bu fekkee da ngaa jug pour defi ko da def la yant bi salaa salaam waxoon nee na gàddaay gi ñuy def gàddaay gi nga xam ne ñu ngi koy def dafa ne fa man xijjaratoo ilallaahi wa rasuli fa xijjaratoo ilallaahi wa rasuli waaye wa man kaanat xijjaratuhu li dunya yusibuha la wax nee na bu fekkee gàddaay gii ñu def yàlla rek moo la si tax a jóg ak yenent bi nee na di ci am yalla di ci am yenente bi waye bu ne fekke gaday gi da ci bëgg ngir aduna wala soxna so xamne ne ka nga tak ngir mëno ka tak nga xamne bo gaday fa gis tak ko bo démé lool rek nga fay am kon magal gi dama japp ne bu fekke ne ko serigne bi bëgg serigne bi rek mo la tax ak yalla ak yenente bi bu boba di nga dem te bo démé di nga salam, ci jamm ak salam te bu dengko li fa serigne bi di nga ko di ko ci am kon loolu mom la jëral murid te euh, serigne bi dafa wax ni dafa wax suñu borom dan ni ko aslak taxaali bila taxaali bi di bila bukai. yow suñu borom dama bëgg dama bëgg nga defal sama talibé yi sama talibé yi dama bëgg nga defal len lepp luñ bëgg am ko te buñ andak ak jooy mooy duñ ànd ak coona waaw duñ ànd ak coona te màggal gi kep ko xamni jug nga ci pour di ci liggéey bëpp ciona bo ci def dang ka wara santé yalla ndax sëriñ bi kat sëriñ bi kat dem nañ ba tuba bi amna ben jour bo xam dañ ka tak sanni ko ay mujj gi sànni ko ay fittal ay bali bari te sëriñ bi faatuwul mujj gi tubaab bi nan wëlbatiku woon tubaab boo xam nu mujjee dafa wëlbatiku daal di rey boppam daal ni kii moom xanaa moom du nit ngir tubaab dafa bañ defet te sëriñ bi wax nan ni ba mu jugee di dem si tukki ba te fii ku fi nekk booy tukki boo fàttee sa bagage da ngay wëlbatikuwaat nga jëli ko te sëriñ bi jugee na sa jàkke ja bàyyi njaboot ko ngir dem si tukki ga am lu mu fàtte waaye dafa ni aw ma ndigalu wàññeekuwaat ngir suñu borom xamal na man damaa war a jëm sa tukki ba kon loolu ku jaayante wunu yàlla mënoo kaa am waaw kon sëriñ bi lim digle ci màggal gi lépp lépp lépp daanaka boo ko toppee sax yow si sa jëmm ji doo ko man waaye nit ku nekk war naa fexe ba def say kim lay kattan. tabaarakallaahu loolu leer na euh, sëriñ bi beneen mbir jaaxal nanu mooy ab murit boo ko gisee murit dëgg laa wax de mhm. da nga ne dafa sopp sëriñ Touba maanaam fanu teg seen góor gi sëriñ Touba. da nga yëg ne dafa sori ci ñoom loolu lan ma ko waral cofeel googu ngeen am ci góor gi cofeel googu ñu am ci góor gi taalibe yi lu ko waral yàlla suñu borom dafa ni ahmadu mu ne ko mbàkke mu ne ko afaa ngay wax dama koy nangu ba noppi bala ngaa wax te suñ tubaa moo wax ne tuubaa li habdil muridin saadixin lohumoo bi xidmatin aw bi hubbi aw hadiya tuubaa li habdil muridin nee na tuubaa texe na li habdil muridin ñël bépp murid saadixin lohumoo koo xam ne dafa dëggal bi xidmati nag wala mu liggéeyal ma aw bi hubbi wala mu bëgg ma aw haddiya wala mu may joxal addiya aw hubbi googu te wax naa leen ne suñu borom dafa wax eh, ahmadou mu ni ko mbàkke mu ni ko avant ngay wax da ngay wax avant ngay wax man laay nag ba pare te suñu tubaa tudd na foofu hubbu gi bëgg gi te bëgg ku nekk xam na ni moo mooy lépp mooy lépp te suñu tubaa amuñ si moom cofeel ndax nit soo ko wóoloo gëm ko yaakaar ko dafa wax dafa mës a wax ni maam Cerno Birahim Ndaamar Daar daal ni ko maam Cerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko bu tuddee yenente bi loo leen di wax mu ni sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko maam Cerno bu ma tuddee loo leen di wax mu ni ko Mbàkke xanaa nga dimbali ma ci mu ni ko maam Cerno heure bu ma tuddee tee de na ngeen wax ni kii euh, Ahmadu amul morom waaw sëriñ bi amul morom waaw loolu la wax mu ni sama amul moroom gi nag ba ngeen kaa mën a xam dëgg dëgg dëgg ngeen nekk si jafe-jafe ma fekk leen fa daal léegi baa ngeen bëgg dara te tële ko ma fekk leen te dimbali leen tabaarakallah loolu am na solo euh, nga xam ne kon loolu war a yi naan Sëñ waaw amul morom loolu philosophe la boo xam ne kon yàgg na waaye jeunes yi dañuy dem ba yàlla xëj na moo koy roofaat ci seen i xel ñu koy doxe mm-hmm. euh, beneen bi sëriñ xas mooy dama gis murit yi bu màggal ñëwee dañuy kontaan dañuy bég mm-hmm. maa ngi koy tooñ sama benn waay sëñ Sidi ñu ngi koy ziaro bu baax mooy sama chauffeur bi euh, ma ne ko murit yi bu màggal ñëwee dañuy kontaan ci fel googu ti moomu nga xam ne daanaka balu nuy dem Touba sax barki dem bi ndajee dama leen yaa ngi waaj nga dem fi ñu toll koy jekk nañ googu maanaam kontaante googu lu koy waral maanaam dëkk ba mooy tax wala wala wala lan la waaw si Omar fay maanaam euh, bu fekk woon mbir mi ni def ni sax dama lay delloowaat tontu ba dama naan la Touba lu muy firi nga ne ma texe ku jëm àddina doo kontaan àjjana ku fay jëm doo kontaan wallahi <laughs> jëm àjjana ku <laughs> jëm àjjana doo kontaan te sëñ bi dafa ne tuuba texe na waaw ku jëm àjjana da ngaa war a kontaan wallahi dëgg waaw nah. <laughs> kon kan mooy jëm àjjana di mer hmm, de kenn wa amma man utiya kitaabuhu yaminihi wallahi waaw hmm. waaw ku jëm àjjana Waro waroo mer da ngaa war di bëgg di kontaan hmm. te tuuba texe na li habdil murid yi ñël bépp murid nag te murid nit ñi dañoo jàpp ni mooy ki aju si Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul mm-hmm. te newul loolu Sëriñ Tuubaa dafa ne xayrul muridi laa yasul saakira mm-hmm. ku nam ma jëm ca yàlla ñëwal ma yóbbaale la ma jëm ca yàlla ñëwal ma yóbbaale la kon loola waral murid yi bu ñuy dem ñuy ànd ak mbégte moom mbégte moomu nag si sëriñ bi la njëkkee mm-hmm. ndax waxoon naa la wax naa la sànq daan la même bu màggal gi di ñëw ni ngay gisee murid yi di di di am ak yëngu ak yëngu gi ñuy yëngu lool li ko waral mooy bégal gi leen Sëriñ Tuubaa te bu ñu demee Touba lan fay fekk beneen mbégte bi ngay fekkal moo waral ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu kontaanee noonu. te te te booy dem àjjana lan fay fekk mooy xeetu fur wi ak ak dale yan la nar a dalal ak ak mbégte ma ma nga fa nar a fekk looloo waral murit tuubaa texe na kan mooy dem Touba kon di mer. wallaahi dëgg la sànq sama benn waaye daf ne ma euh, dama mës a dem màggal kër gi ñu taqalool góor gi fa dëkk dafa ñëw di ñu saraxu ne ñu ñëw leen ngir yàlla ngeen euh, barkeelu. ma fay leen jox leen xaalis nee na dañoo mujj ne ko ñun de doon doon mu ne ku ci ñëwul yal na boo am li ngay wut ci Sëñ ñu mujj ñëw daanaka boo jógee ñu jox la mbuus joxaale ñaari junni mm. mooy dellu ci li ñu wax sànq am murit cofeel gi mu am ci Sëñ Tuubaa mais cofeel gi ñuy am ci màggalu tuba mm. mais Sëñ Xaas am na leneen lu gën a yéeme mooy tubaab bi ak Sëriñ Tuubaa mm. lu ne ñoom def nañ ko ngir sunu góor gi mais mënuñu ci moom dara lan moo ko may loolu góor gi waaw xam nga ba muy jóg suñu borom dani ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko liggéey bii de ku ma ko mus a jox bàyyi nga ko mu yegg suuf mu ne ko yàlla li ma bëgg de mooy bu dee bakkan bi yaa ko moom te heure boo ko fàttee day dem waaye bu dee jom ji am naa ko te fit baa ngi fi mën naa kaa yenu liggéeyal ko est-ce que moo taxit sëriñ bi daal di joxe jom gi ak fulla gi ak fayda gi suñu borom teel ko bakkanam ba mu ko téelee bakkanam ji loolu tax mu mu yeggale liggéey bi ba ba fi mu ba fi yegg nii waaw te li nga wax ci góor googu dafa am benn waay boo xam ni dafa tabax kër Touba ba mu rafet am kum tasanteel ni ko man de ku dal fii cinquante mille ngay am ku dal rek da ngay am cinquante mille waa ji waa ji dugg mu jox ko cinquante mille waa ji daal di xëy war a defal nag bi ba mu xëyee war a defal nag mu ne ko man de damaa war a xëy sa wuti ku defar nag mu ne ko man mii buuse laa bi <laughs> wala sëriñ bi lam def si diggante ak ñoom wallaay kon màggal amul jafe-jafe <laughs> coono yéen war a daj ñun murid yëpp sëriñ Touba liggéey na ko ba pare waaw li si des nag mooy mhm. ñu ñu ñu suñu dund ñun mhm. kese sëriñ mhm. bi sëriñ bi sëriñ lépp lépp sëriñ bi defal nañu ko lépp sëriñ bi defal nañu ko kon màggal gi liñ ciy séentu yàlla nu ko yàlla defalee nu ko nu ko rawee loolu ba ba mu yomb ñu lool ban mën kaa def te amee ngërëmu sëriñ bi tamit ñu ko bëggee ñu darëjee si xaas ba tey am na beneen mbir bu nu jaaxal jaaxal adduna ma laaj la ko lu waral en général ñi ëpp ci waxtaankat yi ñu mel ni yéen maanaam xëy euh, na cofeel la man xaw waaye xëy na ñin ñi laay laajal euh, tey bu ñu toogee ci jotaay seen xel xam nañ ñëpp nag waaye Sëñ daal dafa mel ni ñoom daal euh, seen xel Sëñ rek lay daj daal maanaam léeg-léeg dañ naan murid yi Sëñ Tuubaa rek la ñuy waxtaanee lu lan lan moo waral loolu dégg nga. ah yow tana tanaasuful mawtal maa si tubaab ko bind. lu tax saxaaba yi doon njëkkante ngir ngir dee. kun soppoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ soppoon yenent bi lañ xamoon ñun xamuñu ku dul Sëñ Tuubaa moo tax fu ñu tàllee micro moom képp lañ mën a waxtaanee dèjà <laughs> jërëjëf dèjà wallaahi kon xam naa dañuy julli yëgal incha allah wallaahi ndeysaan ci kàttan yàlla